ne moom yaayam. Njaay. dafa sikk heureusement que jooykat bi nekku fi. Ah. jooykat bi. jooykat bi mooy booy boobu. xam naa ko. booy booy boobu sikk xalaat fi bu fi ñëw rek. mu tàmbalee jooy. jooykat kii kii luy problème am. jooykat yi si bii ci biir oto yi ak yi ci biir kër yi. Mhm. Euh, nañ nañ foofu seen rankoñ yi. ndaw si di bëgg a wax. am sensible s'abstenir nañ ñu koy waxee. waaw mhm. ndaw si di bëgg a wax. yaayam lay waxal. li yaay ji dunde neexu ko. li yaayam di dunde waaw man li jikko yaay ji moo ko neexul. waaw li yaay ji di def lépp pour te commencement ba fin déglu xale bu jigéen bi. ndax man sama problème principal instant yi sama yaay la parce que dafa nekk du mag 38 ans 40 ans la war a am nekk xale bu ndaw mais boo ko gisee instant yi na nga koy jox meeru 70 ans te dara def ko loolu lu dul sàngara cigarette yamba bi da siy ñam. sonn naa trop trop trop trop trop dafa sonn yam sonn naa ko te lu ne la koy def loo su ko amul day siit day lox jaral na ko def loo nekk ci àdduna loo xalaat lu bon rek boo koy def pour am lu mu jëndee sàngara ndax dafa nekkoon ci situation bu baax ak jëkkëram mais yàlla def situation changé dafa nekkoon ko xam ne dafa bëgg àdduna jëkk rafet xees njool sa kaw mel nu ko neex instant yi damay génn sax dajeeg diw mu ne ma yow dajeeg nit mu ne ma yow doo doomu diw mu ne ko ankay mu ne ma da ngeen na niroo mais sa yaay doo ko dab sa yaay ba muy toll ni yow ba muy nekk si digg ndawam dëgg ku xool di nga ko xoolaat ko ndax jekk ndax rafet mais léegi soo ko gisee man damay xool ay photo mi njëkk xool ko instant yi damay jooy sama rongañ day tuuru sama maam ba gaañoo moo waroon nekk relève bi waroon nekk kilifa waroon us njaboot gi bu guddi jotaan man maa ngi door a comprendre bu guddi jotaan mook jëkkëram dañ doon xuloo di xeex di rayante saagante ndey xaañante ay butéel mais dañ naan seytaane la couple yëpp ñooy am loolu ndekete yoo sàngara moo lañ ko doon defloo mais léegi laay doon comprendre ndax boobu dañ ko doon nëbb mais léegi nëbbatuñ ko sama yaay day bay lang di dox ci mbedd mi di daal nit ñi di ko foot di ko yóbbu këram jëkkëram nag moom ay gorom ñu ngi fi ci dëkk bi ay wujju peccoo boom man damay ruus sax ma fa demee man nag yàlla daf ma dimbali yàlla moom yaral boppam ndax man sama man laa nekkoon donc sama yaay di sëyi ba mu gaañoo si la région de sama yaay mais li may dund métti na trop ndax kuñ buñ dëkkaan dañ ñuy joxoñ su ma génnee doomam a ngi nii sama rakk yi dañuy xeex école ba sonn seen camarades yi ku jotee école ñu ne yéen xam ne seen yaay day mangé di ñu nga xam ne seen yaay taximal nii dañ ko dee pour jox ko xaalis mu jënd sàngara sama rakk yi dañoo xeex bi bëgg a dama leen taaj ma ne leen bu leen xeexate bu leen xuloo ku leen tappaas sax bu leen xuloo moom ngeen braako ngeen dem ndax ku leen xuloot na leen xaas ndax suñu yaay moo ñu utal xaas kon bu leen jotee kenn man boo ma gisee du ma xeex du ma xuloo du ma jotee kenn su ma gisee nga fas akkan ma xam ne man mi neexuma la damay téye sama boobu ndax mayuma kenn fu ma xasee mos naa am jëkkër 2015 de nawet ma takkoon mais 6 mois laa def ci sëy bi ma génn ndax lu waroon loolu au début nekkoon nañ boobu sama yaay commencé bu sax daawul feeñ mais ba mu demee bañ commencé sëy ba mu comprendre su ma amee problème ak sama jëkkër sama yaay da dem ak ji ko seen kër mandi bay lang imagine toi boobu gàcce sama jëkkër heure bu ñu cee mu xas ma yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne sa yaay taxawaalu yow mi nga xam ne sa yaay day màndi ndax respecté ma sama yaay utal na ma xas dafa nekk borom jabar ma dem si bés ma siy jii këram fekk fa sama wujju doonu sa am mukk lu ma neex su ma amee problème aw ma ku may wóor ku mu réglé sama aw ma ku may jàppale ndaxte sama yaay utal xas ku mu mën naa dem sama kër goro joteeg moom wala ma joteeg sama wujj mu ne ma sa yaay day cagatu sa yaay day naan sàngara te loolu dafa métti si loolu lañ jotee ba ma génne ci sëy bi à six mois ci laa ci génn rocceeku nekkuma kenn ñemewu maa génn ak kenn ndax ku ma nekkal une semaine nga wane si réew ne ma présenté ma sa yaay présenté ma say parents damay rus ndax sama yaay am naa sax jël nit ne ko kii mooy sama yaay ndax doo ko fekk jamais jamais jamais fi mu ko fekkee mu lucide nag nit ku ñàkk problème nit ku am xol bu rafet ku yaatu mën a waxtaan mën a làng mais gis nga bu màndee koo mën si doon dalay daggale ndey saaga la wax loolu ko neex damay dem këram day fa dëkku ma ak moom parce que man maa décidé ma ne na ma génn parce que am naa kersa nii ma mel nii di génn nit ñi dama gis ne ma doomu diw baa ngi nii damay rus torop yamul foofu de. yii doy na yamul foofu de. yii ban doy na. non tey la ajuma. la ilaha te fii ba lëndi day gudd. baan des na de lii dafa am lu ci des. des na des na des na six minutes. non non non baan kon nañ ko bàyyi ba lëndi parce que lii. xam nga lu nekk sax dinaa ci jéem a am xalaat di ci jéem a joxe xalaat waaye lii. Mhm. en fait dul xam loo ciy wax. ah nga ne lii des na. no des na. moom femme bi lu muy dund te yaayam teg bari na. li mu li mu li mu. léegi est-ce que doo ko bàyyi ba lundi ñu ñëw ci beneen bi. ah ça dépend ci. auditeurs yeneen yu mu dund yu mel nii. waaw neel auditeurs yi yaa yaa ko leb. nga bu doon sa xam naa ne auditeurs yi sax nañ ma ci fekk si.